bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wa imaami almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta al alimu alxakim allahuma callimna maa yanfacunaa wa anfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman alhamdulillahi alladi axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ginnaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala noo ngi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa di ñaan suñu borom bi tabaraka wa taala yàlla ñu yàlla may dégg ak topp ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala moom mi ñu may fanaanum jàmm yal nañu yàlla defal kenn kendaluk jàmm xanaa di bokk di fàttalanteeg mbokk yi rekk waxu boroom xam-xam su mag ki ñu naan xasanul basri rahimahullah ginnaaw bu mu fàttalee doomu aadama bi ne ko ibnu aadam innama ay ayyaamun yow doomu aadama bi de xamal ne li la fi tax a toog mooy ay bés yi nga xamante ne dañuy ñëw di jaar di jàll di dem di wéy ba tax na danga nga war a bàyyi sa xel ne ku kullama zahaba yowman bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baadu am na lu deñc ci sa dund bi ba tax na yow doomu aadama bi lala war ci bés yooyu ngay dund lara war ci bés yooyu ñuy ñëw di jaar di jàll mooy lala sa yonentu bi jàngal sallallahu alayhi wa moo tax ñu ubbi suñu ñaan suñu waxtaan bi ñaan bi nga xamante ne mooy borom bi tabaraka wa taala jëmm bi mu doyloo jëmm ju tànn yónni ko mu nekk ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam jëmm jooju de moo ñu baaxee jàngal ñu won ñu la nga xamante ne keneen kudut moom amuloo xam-xam wi ni mel waaye kenen ku moom xamoo la nga xamante ne moom la ko yàlla yenkeewal sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla yenkeewal xam-xam bi ma yàlla jàppandalal baaxee ko xam-xam ji nga xamante ne keneen ku moom amooko ko xamoo ko yonentu boobu ar sallallahu alayhi wa moo ñuy won bés ya nga xamante ne boroom xam-xam bi di xasanul basri wax nañu ko ne ñu bés yay ñëw di jaar di jàll moo ñu fi tax taxabaay ba tax na bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na lu denc sa dund bi yow doomu aadama bi rawatina yow jullit bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa baaxee xeet wi gannaaw bu ñu yàlla jàppandalalee delloo ñu suñu ruux nee na su boobaa yow jullit bi amuloo dara la ngay ñaan walla looy wax walla la ngay def lulul sant sa boroom subhaanahu wa taala moo tax nga déggee ci ndoorteelu ubbite jotaay wi ñuy jàng sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy adkaaru istayqaaz min an nawm ay baat yi nga xamante ne jullit bi mënees nakaa tudd jamono bu ko buur yàlla tabaraka wa taala jàppandalale mu yeewu ci nelaw baat yooyu mu war a tudd mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nusuur ñaan bi la tekki walla baat bi mooy yow jullit bi bu la buur yàlla tabaraka wa taala wërsëgalee jàppandalal la bem la delloowee sa ruux nga nar dundu dund weneen bés bu bees ci sa dundu bi ci ay fan yay ñëw ci bés yi moo ne da nga war a delloo yàlla njukkal sant ko ne ko alhamdulillahi ledi mboolem xeetu cant yi ñaayal lañ la yow yàlla ndax yaay buur bi nga xamante ne alladi yaay buur bi nga xamante ne axyaana yaa ma dundal delloo ma sama ruux baada ma amaatana gannaaw bi nga dogalee ci man dee bu ndaw te may nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci yow buur bi tabaraka wa taala lañuy ñuy dellu keroog bu ñu tàqale ko ak dund bi dellukaay bu màgg bi du ci ken du fenn fudut fa yow yàlla yaa ñu fi andi yaa ñu wërsëgal dund ba ñuy dund kon buñ fi jógee tamit ci sa coobar dong nekk moo tax nga di ko delloo njukkal di ko sant donte lottu nañ sant yàlla comme nim ko bëggee walla niñ ko war a defee ànd ak loolu suñu kemtalaay kàttan fa mu tollu ndegem ñu koy sant ci suñu dayo ak suñu man-man ak suñu néew kàttan borom bi tabaraka wa taala da koy reconnaître ndax loolu la wax ci alquranul karim la in shakartum bu ngeen ma sante la in shakartum bu ngeen reconnaître xéewal yi yam leen defal la azidannakum dinaa ko yokku dinaa leen ubbil buntu xéewal yokkute ci seen mbir ya ngeen nekk yan doomu aadama yi ba tax na ñun ñëpp war nañoo mànkoo ci waxtu wi ganaaw bu ñu yàlla dolloowee suñu ruux mu may ñu am occasion dund weneen bés lañu war mooy ñun ñëpp ñu yëngal suñu làmmiñ suñu biir gémmiñ ne ko alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur yàlla nañu yàlla wërsagal làmmiñ jakkuy tudd saa su ne waaye yàlla nañu yàlla wërsëgal xool ak xel ba koy xelaat saa su ne waaye yàlla ñu yàlla boole defal mu may ñu ñu nekk jaam yoo xamante ne dañuy reconnaître xéwal yam ñuy defal saa su ne ngir mu daldi di ñu yokk xéwal ya nekk fa moom subhaanahu wa taala ya rabbal alamin mbokk yi yal na jaam yi nekk ci yéen ak seen njaboot tey ci kattanu borom bi tabaraka wa ñu fas yéene ànd ak ubbil leen xët bu bees bi nga xamante ne képp ku tënk boppam ci ndigle ya yàlla suñu borom tabaraka wa diggal doomu aadama bi rawatina yow jullit bi bu ñu demee xool ca alquraanul karim ci suratul maida ci ñaareelu aaya bi borom bi tabaraka wa mu ngi soññaate di ñaaxaate di wax yenentu bi ne pénc bi nga xamante ne mooy péncum jullit ñi environnement jullit wi dëkkinu jullit bi waaye dunduni julit bi am na la ko war ñoŋal am na la ko war a jekkal ba tax na buur bi tabaaraka wa taala mu daldi ñu jox ñaari avertissement yi nga xamante ne dañ ko war a exécuter waaye ñaari avertissement woowu dañ ko war a dund dañ ko war a jekkal appliquer ko waaye ci njeexantalu aaya bi mu daldi ñu jox weneen ñaari avertissement woo xamante ne dañ ko war a sori dañ ko war a moytu ndax baaxul jekkul kon képp ku bëgg a xam njëlbeenu avertissement ba ñu yàlla digal ne nañ ko inculquer suñu dund nañ leen ko installer ci suñu dund ndax suñu dundun bi mucc ayib mu doon dundin bu ñoŋ ki bëgg xam avertissement bu njëkk beeg ñaareel bi nag ñu may nopp ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 mbokk yi yan na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot buur bi tabaaraka wa mu ñu bind wàccee ñu ci territoire bi ngi naan adduniya mu wërsëgal ñu ay bés yay jaar di jàll di dem waaye ñu xam ne bés yooyu ñuy jaar di jàll di dem comme na ko boroom xam-xam bi waxee xasanul basri rahimahullah nee na war nga bàyyi xel ne bés bu jaar ba jàll dem dootul ñëwaat kon ba tax na yow jullit bi war ngaa jël bés yooyu ñuy jaar ci sa dund ñuy dem nga sàmm wanteg say cër yi sàmm wanteg ndigle yàlla yi sàmm wanteeg tere yàllay buur wi tabaraka wa taala ba tax na tey ñu fas yéeni xuusandek yéen ci suuratul maida buur wi tabaraka wa taala di baaxee yonent bi ci suñu téere bu mag bi di alquraanul karim mu ne ko wa taawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ismi wal udwan yi la aaya bi di tekki yaa layta ñépp xam maanaa aaya bi ak neexoon ñépp xam maanaa aaya bi ñu di ko dund suñu digganteeg ñeneen ñi waaye ñu ko dund ñu di ko dund si suñu pénc bi ñu di ko dund suñu digganteeg mboolem ki ñu war a séqal dund bi wala mboolem ñu séqal territoire àddina moone ne aaya bi buur bi tabaraka wa taala ma bëgg suñu dundin bi mucc ayib mu doon dund bu ñoŋ dund bu jekk bi tax na avertissement yeddaange bu njëkk bum ñu jox mooy wa taawanu buur bi ne ñu ngàllawaay wa taawanu na ngeen jàppalante wa taawanu na ngeen dimbalante wa taawanu na ngeen taxawee wante xettalante ci lan alal birri wa alal birri ci njekk wa ak ragal yàlla na ngeen ñaaxante ci njekk ak ci ragal yàlla na ngeen xallilante yoon ci lépp luy lu baax ak wattu yàlla lu baax loolu ngeen di diggalante seen biir yeni neen na ngeen jàppalante ci lépp luy ñoŋal pénc bi boore ko ragal yàlla na ngeen taxawee wante ci lépp luy defar diggante bi boole ko wattu yàlla suuru yàlla ragal yàlla ci kàddu yi ragal yàlla ci jëf yi waaye ragal yàlla ci jëmm yi wa taawanu na ngeen dimbalante alal birri ci lépp jagal pénc bi alal birri ci lépp luy ñoŋal pénc bi alal birri ci lépp li nga xamante ne day tax dund doon dund bu mucc ayib dund bu jekk lépp jagal dund bi lépp luy ñoŋal dundin bi na ngeen ci taxaw na ngeen ci jàppalante na ngeen kay wax na ngeen koy jëf wa taawanu nangeen dimbalante alal birri ci lépp loo xamante ne xeetu njekk la wa taqwa ak suur yàlla ci lépp suur yàlla ci kàddu yi bàyyi xel yàlla ci jëf yi ragal yàlla ci lépp li nga nekkee fiñ la xam fiñ la xamul ku la gis ku la gisul sóoral yàlla ragalal yàlla ci anam bu munti ne xam ne yàlla mu lay bàyyi xel te mu ngi xam li nga nekkee la nga nekkee sax ndegem moo la ko jàppandalal benk ka nekkee kon li la war mooy nanka suur bu baaxa a baax a baax ci wax yi ci jëf ci xalaat yi ci bindi ci lépp luy bind na nga ci sóor yàlla looy wax na ci sóor yàlla na ci ragal yàlla wa taawanu na ngeen taxawee wante na jàppalante nangeen ngeen diggalante alal birri ci lépp luy njekk wa taqwa ak xeetu ragal yàlla mbokk yi njëlbeenu digle yaa ngi ni yàlla ñaax ñu mu di ñu wax ne na ngeen taxawee wante ci lépp luy njekk ak ragal yàlla ñaari digle yii la yàlla digle ci njëlbeenu aaya bi ñu toxu dem ci yeneen ñaari tere ya yàlla tere neena na loolu buñ ko jëf buñ ko wax buñ ci taxaw buñ ko melo mu teg si ne wala taawanu ngalla waay ma ngi di moytandikul buleen leen jàppalante bu leen dimbalante alal ismi ci bàkkaar yi wal udwaan ak noono mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci ak seeni njaboot buur yàlla tabaaraka wa daf ñu tere yeneen ñaar ya nekk ci suufu aaya bi ba tax na moo tax daf ñu ne wala taawanu ngalawaay buleen jàppalante bu di dimbalante alal ismi ci faggutee fu bàkkaar yi ngeen di faggul seen bopp wal uduwaan ak buleen di taxawee wante buleen di jàppalante bu di dimbalante ci noonoo yi nga xamante ne da ngeen koy jëmale ci seen morom yi kon fii ñu déggee maanaa ñaareelu aaya bi buur yàlla tabaraka wa taala dafa tere ñuy dimbalante ci fagguteefu bàkkaar dafa tere ñuy dimbalante ci noonoo ya ñuy jëmale seeni mbokk julit walla xattaa seeni mbokk doomu aadama xanaa du ñàkk nit dina laaj ana nan la nit di jàppalanteek moromam ci jëf bàkkaar ñu di tontu ki bëgg laaj laaj bi mooy jamono bi nu mu yàqoo jamono bu nit ñi nu ñu boyalee seeni làmmiñ ak seeni jëmm ñu di ko tàllal di ko xaawi di ko jëmale fu leen soob képp ku mel nii mu faggul boppam bàkkaar bëgga laa faggul bàkkaar lànkal bu commencé di wax li toll ni lu ñu warata mun a digg nanga ko bu ko yeggali du question ne danga kaa ñàkk kersa du question ne yàlla moo ne wala taawanu bu leen dimbalante al ismi ci faggute fu bàkkaar dafa ñëw ci yow ngir mu fagguloo la bàkkaar lankal bañal information la la andil déglu ko boo xamee destination information bi du am suite bu baax njeexintal bi kenn du ko mun a dégg ci commencement bi nga ko naan aritel wala nga freiné ko anam bi nga xamante ne dootu tala jekkali information bi mu la àndil ngir nga nara daw la nga xamante ne mooy fàgguteefu bàkkaar bi nga xamante ne moom la la bëgg fàggul fàgguteefu bàkkaar boobu mun na la fàggul yow yaay joué say méthode ba nga xamante ne doo ko may fu ko may fu muy yekkee nakk bu mu la bëgg a ngir nga bokk ci bàkkaar ya muy faggul boppam fexeel nga daal ko arrêté ci anam bi nga xamante ne dootul am waxtu ngir jekkali la mu tàmbale woon la tax nga di ko def nii mooy ne borom bi tabaraka wa taala moo ne ci aaya bi wala taawanu ngallawaay bu leen jàppalante bu dimbalante bu leen di taxawee wante kenn bu mu xàllil yoon moromam ngir Ah. alal ismi faggute fu bàkkaar wal uduwaan ak noonoo yengeen di installé seen diggante kon aaya bi bu fekkente ne dégg nañu ko comme na ko buur bi tabaraka wa yenkeewal yenentu bi ci suñu téere bi ngir ñu war ko mun a installé ci suñu dund bi mooy aaya bi lumuy tekki mooy ñaari dig yañu yàlla suñu borom tabaraka wa taala digal lu baax la lu ñu war a mën def na ngeen jàppalante ci lépp luy njekk lépp luy ragal yàlla waaye bu leen di jàppalante bu leen dimbalante ci lépp lu leen di fagguloo bàkkaar ak noono ndax bàkkaar day lindimal doomu aadama bi rawatina jullit noonoo day mabb jëf ndax noonoo mooy andi kiñaan kiñaan day lekk jëf yu baax yi comme ni safara di lekkee matt am na xadis ba yenentu bi ne maa leen di moytandikuloo kiiñaan ndax kiñaan day lekk day mabb jëf walla day lekk jëf yu baax yi comme ni safara di lekkee matt bu wow kon képp ku bañ a sa jëf ju baax ya nga jëf say julli say kor say saraxe say azak say aji màkk say dem jàkk di dem ko ñëw képp ku ko bañ a ñàkk ngalawaay bul bàyyi kenn mu di la fagguloo bàkkaar ak noono ndax kenn ku nekk dafa am rapport ak moromam bakkaar dafa am rapport ak noonoo noonoo dafa am rapport ak bakkaar képp koo xamante ne yaa ngi bakkaar ci moom njeexintal ba mooy danga koy noono walla moom ci boppam bu xamee ne yow dangay ngay bàkkaar ko ci jëmmam dalay noono lu koy commencé ak lu koy créer mooy bàkkaar ba ngay bàkkaar ci moom ku dem moo wax ku dem moo dem fii ku dem moo mel nii lu la ci wuur dara amuloo benn certitude bu lay wonne ñaaw njort ba ngay jëmale ci sa mbokkum jullit walla sa mbokku doomu aadama bi amuloo dara lu la ci leer ñàkk leeraay boobu moo tax nga war a rafet njortu ci moom waaye ñaaw njort bu installé sa digganteeg moom ku dem day jaay lii ku dem ci ñii la bokk ku dem lii la nga di ko njortal ñaaw njort boo xamante ne képp ku ko jëmale ko ci sa jëmm ji du la neex waaye ngalla waaye bu ko jëmale ci jëmm keneen ki ndax bàkkaar boobu ngay fagul sa bopp di ko bakkaar ci jëmm doomu aadama ni mu yàgg-yàgg danga koy jàppee noon walla moom ci boppam bu demee ba mu leer ci boppam ne kii day bàkkaar ci sama jëmm ji dalay noonoo te yàlla daf ñoo tere ñaar ni ñaar ya nekk ci kaw moom la la buur yàlla digal waaye aka neexoon nga xam ko benka ñam ngay rafet njort ci sa mbokk nga di ko suur ci xeetu njekk ya nga nekkee masalan boo toggee sa ñam bu neex nga yëkkal ko bu weer dee nga defar enveloppe bu xaw a jekk nga nuyoo ko ko wala gone yoo nga xamante ne dañ leen di yónni ngir ñu yóbbu yóbbante ci téléphone yi ñaari gone yooyu koo jox mu yóbbante la kooko ko jox koo jox yóbbante bi mu yóbbul la waaw nga ne ko yónni naa gone bu ñu naan diw ba xam yët na la limala yóbbante waaw nga rafet njort ci sa mbokkum jullit nga rafet njort ci mbokk bu jege nga rafet njort ci dëkkandoor ngay yéwinal di ko jëmale ci ñoom ngay rafetal di ko jëmale si ñoom boole ko ragal yàlla bu toll nii est-ce que yàlla dina nangu sama jëf ji waa yàlla boo ko nangoo yàlla nga ma ko fulandil xeet yooyu la aaya bi di tekki buur bi tabaraka wa taala diggal ko ci alqur'an mu nañu ñu wa taawanu ngalla waay na ngeen jàppalante ngeen dimbalante wa taawanu na ngeen xàllilante yoon yoon bu yaatu kenn ku nekk ci yen nafa jaar nafa aw nafa nekk ci lan la ñuy nekkee ci yoon woowu ana lan lañuy jàppalante ci anam bi ñu yàlla wax mooy alal birri ci lépp luy baax-baax lépp luy xeetu taraanga nanga nga dégg kàddu ju rafet ci sa mbokku jullit ci say nopp waaye na nga wax kàddu ju rafet ci say làmmiñ ci sa mbokku jullit na nga rafet njortu ci moom bàyyi ñaaw njortu ci moom bañ ko waxal loo xamul bañ ka sosal bañ kaa jëw bañ a wax lu la wóorul ci deram bañ a yàq deram lii lañu yàlla sant wote taawanu yàlla wax na ngeen dimbalante koo tane dimbale ko alal birri ci njekk wa taqwa ak nga am ragal yàlla ci lankay taxawe borom bi tabaraka wa taala daal tere mu ne ñu wala taawanu ngallawaay bu leen di jàppalante bu leen di xettalante bu leen di dimbalante ci lan alal ismi ci faggute fu bàkkaar wal uduwaan ak noonoo we ngeen di installé seen diggante kon ñaari aaya ya nekk ci kaw loolu la yàlla digal nit ki doomu aadama bi ngir mu nekkeeku ci pénc bu mu nekk di dund yeneen ñaari aaya ya ci suuf lala sa borom tabaraka wa tere ngir nga bañ kaa dund ñaari aaya yu nekk ci kaw mooy yalla neena wote wa taawanu na ngeen dimbalante alal birri ci njekk wa taqwa ak ragal yàlla wala taawanu walla ngallawaay bu leen jàppalante bu leen dimbalante alal ismi ci fagguteefu bàkkaar wal udwaan ak noono fagguteefu baakaar ak noonu das day tas penc day tas kër day tas mbokk day tas xaritoo kon bu kenn dimbala mbokkam ci fagguteefu baakaar su ko defee buñ ko deful rek fagguteefu baakaar ba ñuy dimbalante day andi noonu suñu diggante te yàlla nee na bu leen dimbalante ci fagguteefu baakaar ak noonoo ba ngeen di noonoo seen diggante mbokk yi waxtaan wi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yàlla ñu yàlla may dégg topp amin ya rabbal alamin ñu war a jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar su ko defee ñoom it ñu wuutuñu si béréb bi ñu ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yaxfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan amin ya rabbal alamin baraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu